peut-être Léona Niassène daal di fay amal li nga xam modi moo don ziaram sax jullee fa li nga xam modi moo juma en tout cas li plus si am rek bobu dee li nga xam modi peut-être li nga xam modi communiquer di que ni Ousmane Sonko waru fi mën a naxté dañuy bañ li nga xam modi ay quelques désordres yi nga xamni tam itam ko war a ko fa xamni tam ni itam musaal dañuy bañ mu daal di répété fa nga xam ni itam musaal Léona Niassène saa si nag li nga xam nekk porte parole ba def na li nga xam modi moo di apub démenti maanaam wedd na ko mu daal di seet jàpp na ni yëf fi dara rek du ci dëgg ci communiquer bobu ni leen ko daal di wane noonu à travers les nga xam que mu ces images mais li ñu si jaaxal nag euh, signature yi nga xam ne itam gis nañ ko si ak cachet yi nga gis allant euh, dans ce sens d'aller j'aime jëm si mais alors ni si dit que nag si euh, wal wi mais dañuy exactement si relations li nga xam que modi di xaw a tendre Ousmane Sonko ak li nga xam que moo di këru auto li nga maudit dîner exactement de plus en plus ñi ni dafa tendre ñi ni d'après ndaxte li nga xam nekk moo di Ousmane Sonko quoi comme puisse dafa am lu muy représenté lu am solo nag si nga peut-être tarixa yi justement alors euh, diggante boobu naka naka daal di gisee euh, ñii daal di koy jàppee campagne de diabolisation la naan état baa leen jiitu si li nga xam nekk moo di kër uti diine pour daal leen jaxaseeg li nga xam nekk moo di euh, ñu ni mel naka na daal di gisee boobu rek campagne de diabolisation exactement. bon lu ñu mën a noter mooy. Hmm. depuis jamono jamono hmm. kii Mamadou Dia. Hmm. donc euh, li ñu seetlu woon mooy maanaam mm. tey jii mm. buñ ko buñ mm. donc ils ont utilisé les mêmes méthodes. di dem ci këru diine di diaboliser. donc euh, euh, ñun ñu ni en tant qu'acteur observateur ci la ci scène politique tamit lu ñu gis mooy maanaam bon sonku tamit il est victime de ça. donc c'est sa politique donc bu mu dikkee ci politique ay wax yu ne dégg nañ ko fi donc ay la tu salafis la rebelle la nañ man a ñàkk mm. a par exemple man tarixa par mm, exemple mm, bon n'a pas grandi dans cette sphère là. culturel bon bi nga c'est socio culturel donc man tey jii euh, bon dugg ci ay yenn détails man pour man. Eh, eh, eh, tarixa yi bon bon euh, rapport bi wara am entre politiciens bi ak euh, euh, kii këru dafa wara don rapport bi ki mm. mm. donc mais il faut aussi noter que xeyna na di campagne diabolisation mais buy dem tamit c'est parce qu'il y a certains libre penseurs bon je sais pas ba xam Pastef lañ bokk wala bokkuñu fa donc mais bon souvent ñom seen c'est gaay dañ leen di ji manam passef lañ nek par exemple man aussi suis un libre penseur man ma Pastef hmm. tay jii man mun na émettre ben idée mais suba ñu gis ma ma ànd ak position pas ñu né ñii yëpp ay passé donc il faut hmm. qu'on fasse qu'on arrive à faire la part des choses ñu nekk hmm. ci réseaux sociaux yi ak ñi ñi les man musuma dégg par exemple un responsable on on au cadre de de Pastef muy muy amal ben discours bi nga xam contre euh, contre gisuma Ousmane dégguma Ousmane Sonko euh, muy wax ci cadre donc hmm. man pour man je m'en limite à le euh, man limite là quoi donc les euh, ay militants yi nek fa yeneen say ay des gens yi nga ils ont des comptes fictifs donc nous nous même des fois on est victime de ça yeneen saa nga wax rek am ki lay wax rebelle nga donc ça fait mal mais bon je dis que c'est pas intéressant donc c'est des détails qu'il faut des fois s'en passer donc bi nga si c'est aujourd'hui on on on on qui moom Sonko bo mo jogone wax ci taarix peut-être on peut condamner wala ben responsable bi nga xamantene ne mu ngi ci Pastef donc mais au-delà de tout ça man ces histoires de euh, bon à ak politique bon dama japp ni donc euh, politique bi dafa wara on peut qui quoi donc mm. nous on n'est pas trop trop dans ça quoi des trucs de de Il il faut pas que nous mm. dougal débat sur la scène politique donc euh, il faut s'en passer il faut il faut euh, qu'on qu'on qu'on discute qu'on débat sur des idées quoi donc c'est des programmes sur des visions au lieu de rester là donc des trucs de du waaso dit di que c'est la manipulation des sentiments mm. religieux de tariha, voilà, de ethnique c'est pas bon donc il faut man ma ma jàpp ni. Hmm. débat bi dañ fa war a eh, eh, yóbbu ci beneen level quoi donc. Hmm. alors euh, mi ngi noonu donc euh, Malick activiste mooy doon suñu gan tey nga xam ne moo di Midi Info wax leer na euh, jëm si wàllu lu mel que ni débat bi faaw ñu daal di ko daal di jëm si wàllu wu mel donc Malick dañuy daal di wéyal bëreeg rek bëreeg rek si wàllu wu mel alors hmm. sànq wax nga ni mosoo dégg benn au cadre bu Pastef daal di def yooyu de li nga xam ne moo wax daal di koy si kilifa diine yi moom la ngañ tuxee daal di yëkkati woon mu daal di julli nekk mu di coow fi na xam nekk mooy zone Sénégal ni bis bu ni ñu fi daal di neen fexe ba nit dootul jaamuti moroom nitam mais suñu boo xam ne daal di jaamu exactement ñu si ëpp nag daal jàpp ni euh, tarixa yi la bëgg a waxal euh, jëm si euh, li nga xam nekk mu di ñoom ak seen ay taalibe exactement maanaam kilifa diine ak seen ay taalibe naka na daal di analyser woon kàddu yi nga xam ne itam moom la ngañ dem daal di yëkki woon jëm si wàllu wunu mel la avant moi je l'ai écouté mm. en tout cas mm, mm. donc euh, moi je l'ai écouté religieusement mais bon da ngay xam conception moom man euh, dawa la wote, je sais pas xam nga man sama jàngum soriwul ci alquran mais dawa mon appel donc bu noom mu ngi ko théoriser si afin da ngay gis ni il veut dire que manam ñu jógee ci jaamu nit dem ci jaamu yalla manam il parle de au finish il parle de souveraineté quoi si je me comprends man ci luma ko jappé quoi c'est pas quelque chose de grave tay di bu dee tamit loolu moo am amone sax mu ñu jaamu donc ma ma xam ne islaam tamit loolu la fi nekkee maanaam ñu ñi jógee ko jaamu nit du du islaam sax du jaamu nit comprendre donc jaamu yàlla la quoi man c'est pas ça le débat mais moom euh, ci nu mu ko argumenté man ci lu ma jàpp parce que noonu hmm. laa ko comprendre hmm. maanaam il fait un maanaam dafa nit ñi tey jii boo gisee suñu njiit yi tey jii maanaam dañuy jaamu ay ay tubaab tu vois donc côté boobu la ko yóbbee mu ne léegi jógee ci jàmm maanaam jógee maanaam mu doon benn souveraineté parce que a évoqué de souveraineté alimentaire militaire économique politique c' est ça qu'il veut dire par là. Hmm. donc xam nga corrélation boobu xam nga man man mi jànguma ar ko mais man foofu laa ko comprendre parce que dafa ne appel bi mooy tey jii ñu jógee ci jaamu nit ja dem ci jaamu yàlla mooy amaat amaat suñu bopp ci wàllum kom ci wàllum euh, euh, ci wàllum politique ci wàllum militaire comprendre man hmm. foofu laa ko comprendre ci hmm. wàllum kom donc euh, il faut pas aussi nous détourner ça détourner débat bi parce que je l'ai écouté religieusement donc c'est c'est pas que après l'autre, bu mu jógee gis naa muy dem ci euh, kilifa c'est mm. dire que Sénégal fi, on peut pas s'en passer parce qu'on respecte tout toutes ces tarifs là mm. mais tamit dafa am li nga y a une jeunesse qui est là aujourd'hui qui est prêt au changement mm. donc il faut que tamit les les les foyers religieux sachent qu'il y a y a y a un vent de changement qui y a un vent de changement qui est là il faut que nous adapté parce que tey dit euh, dañuy gis beneen de changement ko exactement lan moo fi daal di peut-être deux ak euh, par rapport à euh, diggante kilifa diine ak li nga xam ne di donc donc man dama dam dafa am prise conscience mais <laughs> il faut nga leeral. am non le mes mes convictions. Mm, mm. donc moi j'ai grandi dans un milieu ou tey jii man musuma euh, musuma am ben sëriñ par exemple. Hmm. mais c'est pas c'est pas méchant. Hmm. je respecte tous ces gens. non c'est ton choix personnel là. là on respecte donc loolu man fi ma màgg la quoi. donc yooyu da ngay gis. là on respecte manam euh, hmm. ñun. Euh, sëriñ ñu am par exemple vous n'êtes pas obligé non dama wax manam ñun fuñu bangé da ngay gis sëriñ par exemple bo jógee un gars ko celui qui connaît Kolda par exemple da ngay gis ben Thierno Ali bo jógee woon maanaam boo ko joxoon beneen bi mu ñëw nga nga nga jog di ko nuyu cest à togal man ma wara a comprendre ñun on a grandi dans ça. Hmm. Donc là aussi, mais ici aussi, il y a une autre, euh, y a des réalités sociales hmm. qu'il faut respecter. Hmm. Les femmes, euh, bon, ils ont leur euh, façon de, qui, de, de, de, pratiquer la religion, qui une réalité socioculturelle, nous tu vois, donc nous respectons, tu vois. Mais il y a aussi une jeunesse qui est là, qui, qui est en train de prendre une prise de conscience de la jeunesse. Donc, tu dis, bo, bo, diakal, man, mi, hamantene, tu dis, ah, ma, l'oumaï, lek, ah, ma, qui tey jii benn kilifa diine bu ma gomloo ni affaire bi fii la maanaam fii moo fu baax bi donc on dirait que euh, euh, wala ñi nga xamante euh, y a des problèmes mm. auxquels on les attend donc ils s'expriment pas mais maanaam tey tu vois c'est tout un tas de trucs qui qui qui est là en fait donc il faut que ñoom tamit ñu am benn neutralité sur certains sujets politiques wala tamit ñu mun ci addu parce que yeneen saay da ngay gis bu dee boor bii la du ñu wax bu dee boor bi tu vois donc c'est tout ça mm. il faut manam dal euh sa gisin dama lay relancer nag mm-hmm. mooy euh, serigne yi xaw neutre par rapport ak traitement yenn si ay hommes politiques fi nga xam ne mooy zone Sénégal euh, suñu mënee jël quand euh, wu président Macky Sall ak quand wu ki nga xam ne mooy Sonko ils ne sont pas neutres non du fofu la da xam nga dafa am yenn yenn bon. Hmm. pour préciser quoi. Hmm, parce que hmm. dafa am benn catégorie de de de de sëriñ bu fi nekk parce que y a des fois religieux tey ñom ni les les grands sëriñ par exemple. ils se prononcent pas sur certains sujets on le comprend parce que ñom tamit ci position bobu lañ nekk manam nguur il faut bon ñom nguur la nekkal on respecte ça comprendre donc mais yenn ya fa am yenn taalibe yi nga xamante ne man bu ma wax bu may wax sax du euh, du cadre boobu laa mooy je parle pas au grand sëriñ. mooy hmm. sëriñ Mountaga sëriñ Moussa. tu vois donc les les grands. Euh, mais si muy sëriñ yi. maanaam euh, ñi leen ñi leen wër. waaw ñu leen wër y a un lobby qui est là xalif là. bi nga xamante ne tey jii ñoom ñooy yeneen saa yi prendre comme bi acte bi nga gis ñu ne. ñoom ay lobby lañu waaw ay lobby lañ nekk ci autour du xalif yeneen sax ñoom ñooy boo boo demee sax ñoom ñooy fermer hmm. protocole bi comprendre hmm. donc ñoom ñooy ñoom ñooy def manigance yeneen manigance on comprend mais aussi ça il faut que ñoom ñu xoolaat seen travail tout ça ñoom daal leen xaw a corrompre des fois c'est ça la vérité ceux qui sont tout ceux qui sont euh, ceux qui rôdent autour du xalif donc utilise utilisent le di xale wala euh, mooy position yu ñu am euh, ci ci ci ci ci euh, ci foyer religieux pour def ay yeneen manigance et ça c'est pas possible. alors su ñu xool incident yi nga xam ne tam amoon na si waadu Mbàkke daal di toll say station yu bëri daal di ko fay li nga xam ne que moo di saccage ak ay seen champs ak ay supermarché exactement est-ce que jàppoon tamit conséquences yooyu la ñuy bañ a dundaat allant dans sens. bon c'est pas le même c'est pas c'est pas la même chose. parce que si li xewoon Mbàkke euh, peut-être déew moo daal di communiquer communiqué bu parce que euh, li ñu mel gis communiquer bi que peut-être beaucoup bëgguñu bien euh, règlement par rapport à ces cité religieuses. non bon moi je ne peux pas faire ce raccourci là parce que c'est pas le même scénario donc fallait je pense que c'était un. parce que fallait c'était c'était une prière de vendredi. non foofu mitin la fan nga xam ni prière bi y avait pas il y avait pas eu d'incident. Hmm. donc mais dafa am meeting bu nekkoon Mbàkke je pense donc si je ne me trompe pas c'était ça. Donc, euh, il y avait un meeting à Mbaké. Après la prière, des fois, on a rallié Mbaké hmm. pour un, un, meeting. Donc, euh, c'est ça, quoi. Donc, Finac, donc euh, c'était pour une prière, uniquement une prière, quoi. Donc, Mais est-ce que japonais, prière bon, Peut-être que un Sonko, gars dem gaïda, top exactement. Est-ce que japonais, peut-être que nous dépassons le cadre de prière Wow, bon souvent Sonko y dafa daf ko qui hmm. hmm. par exemple euh, y' a des gens euh, y' a y' a une foule une de foule qui qui donc euh, là bon je sais pas comment mais man pour man sax vous bu bu bu hmm. par exemple y' a une autre manière de de de Ousmane Sonko en tant que responsable nga woo ko si suuf ñoom xam ni xale bu ko won ci souf par exemple ne ah bëgguma wala euh, Ousmane Sonko pouvait passer dans en catimini en silence. donc euh, communiqué ah. bobu su nekkoon peut être dëgg euh, rafetlu ko daal di jógee bi. donc bon. mais waxal rek. <laughs> non du loolu sax mais. <laughs> mais bon man dama japp ni. ab kenn mënu ko téré ñew ci bërëb jullit. c'est ça donc jarul ñu koy stigmatiser. donc c'est ça quoi donc. mu bu doon bu doon loolu sax sax mënoon na ko woo mu ne ko bu fi jaar genre yooyu c'est plus diplomatique après du bëri tollee quoi. Hmm.